hello guys te Gambian olof laay wax sax at least first part of video bi nii dafa war a nekk Gambian olof Gambian olof laay wax tey because ki ma waxal kooku dafa war a dégg Gambian olof bi ma koo wax first part bii tey ku ma waxal koo ne dafa war a dégg Gambian olof bi ma wax so yeah guys na ngeen def ak si leen naka ngoon si jaama rek waa defu leen dara guys yéen a ngi te tey dafa am benn Gambien bu ma ñëw waxal si te duma tudda turam because moom si boppam mu ne nit yi mun nañoo ñëw ñu gaaruwaale de jarul ñuy tudda tut turi nit yi xam nga mënuma olof because man dama loof suma olof yi boppa yi be Gambian olof mënuma ko but dinaa try sista bu ma waxal si nii moo ginaa nekk sista bu ginaan naa féexa si sista yu dee def vidéo yëpp booy waaye man du ma tudda turam because sister bi dama ko despise du ma tudda turam because sister bi dafa fake ba pare moom si boppam ah moo njëkk a start internet bullying bii nii moo ko jàngal nit yi doy def vidéo yëpp booy ñu ko dee def yëpp man ak ñëpp moo ñu ko jàngal booy because sister bi depuis Facebook la nekk xam nga ni yées booy depuis man ma balaa may start vidéo man ak ñu bari dañ fekka màgget bi nekka Facebook booy te sista bi dafa màgget sista bi ma amul sixty years booy te bugguta màgget loolu mooy faray xolam bi booy bugguta màgget sista bi duma ooturam comme nu nekka di ma def fan yi yëpp dee yëpp booy noonu laa ko def tey sista bi dee si yëpp mu ma gaaruwaale left right and center yaaga na si sax du tey rek xam nga lan mooy problème mu ne man lu te ma dee wax xeesal loolu moo ko neexut su ko neexut dafa dee booy moom kenn nekkut di xeesal te sista bii du ma mun a teree wax xeesal xeesal su ma koo wax du moom moo tax may wax faalewu ma ko moom kenn su doon xeesal su ma yoon du fa nekka community bi xale yu ñuul yi fi nekka te nit yi di xeesal xale yi nit yi di di yaxa seen confident loolu moo tax may wax munut maa teree wax loo noonu te sista bi dafa naa féexa xabooy ba nga xam ne ah non sista bi dafa am soo su amutoon sans dinaa ko waxtee loo xam ne te su amutoon sans turam lay oo sista bi daf ma defalaat vidéo two days ago guys te itam mu ma defalaat vidéo right now mu ma defal live vidéo sista bii nii mu ngi nekk di ma defal vidéo booy nit yi di dugga foofu noonu gars yi di ma bulli di ma gaaruwaale booy mu ne man maa dee wax ne nit yi dee feeca ñoo dee yàq community bi gars yi di ma gaaruwaale naan community di ma ree di ma gaaruwaale moom ak yeneen nit sista bi mu ma defal vidéo tout de sego si Facebook am bi wooy di ma gaaruwaale naan palaat yu toj man dama faale palaat yu toj man faale wu ma palaat yu toj man may film ay janax suma waañ bi di ko wane TikTok ñëw blog vidéo bi sax faale wu ma loolu noonu what the hell is that yow xoolal sa yaram bi noo mel booy sa yaram baa ngi xeesal benn nëb mel ni mbutta but feebar booy nga naan ma palaat bu toj man dama faale palaat bu toj because nekkuma fi di nekkaa jëkkëri jàmbur yi moo tax aw ma palaat yu correct yu ma war a am I don't care about palaat am naa at least suma original skin yow looy jënd ay palaat booy demal jënd diw nga la mère bu em ni yow ngay xeesal sa doom yaa ngi ñuul nice ngay xeesal mel ni tomate bu nëb booy yow you hate yourself booy how can you love somebody else mag bu sew jikko bu bon bu nga nekk yow yow yaa dee interview nit yi laajte leen seen seen yow bu ma doon interview yaa ma call ay fi ay diis laa wax di ma call di waxaa man di ma neexal pour ma am fit pour wax ma ne la su ma waxee nit yi dañ maa jooj nga ne ma is faxe doon wari dina di nga ee nit yi ma ne la ay no xaaral ma jàpp si yàlla rek wax su eboo ñu jooj ma sax damaa ñëw pour ee leen ma ñëw wax nit yi di ma jooj yow yaa waroon a génn nga ne leen kii man maa ko njëkkaa interview si lii bu leen ko saaga si lii waaye déedéet yow sa boppa yaa ma njëkkaa saaga si lii balaa ñii di ma saaga sax yow booy fii last year bu nga demee si pati góor jigéen bu ma taxaw wax ma génn fii di wax ne yow sa yow sa maas yi lu ngeen a uti si pati góor jigéen di promote góor jigéen nga ñëw génn di ma wax naan sa caapa bi buñ koo toj judduwuloo moo tax nga dof yow mag bu bon bu naa féexa bu nga doon yow yow danga am sens suma yaay sa ayama saaga ndey yow yaa xaraam yow man ngay gaaluwaale waat yow yaa waay yow yaa alaku yow loo am lu nit amut ñuy wax nga naa nit yi dañ ma iñaan dañ ma bañ kañ moo laa bañ man ngay garuwale ay palaat yu toj ay salte ay nippiti ngóolu yow yaa set yow sa yaram bi mel ni mbuta yow sa néegoo nga may moo daaxa yow gambien yi la daaxa néeg sa duñ ko vidéo booy sa néeg bu jaxasoo bu xumba bu dof boobu mel ni marché bu dof booy yow sa deri nag boobu nga lal sa digg néeg bi yow wér nga yow sa benn toogu hundred years boobu ak sa deri nag boobu every day nga film ko booy sa diggi lal bi everyday nga film ko ya rek yëpp danga respectgul sa jëkkër moo tax ngay def loolu yow li ngay ñëw si vidéo man mu amul jëkkër sax du ma ñëw dat ma ci vidéo yow sa sëy bi dafa mel ni happy wuloo maan xam nga lu la jot yow nit nga yow mun ngaa xas nit gis nga yow soo ma gaaruwaale waatee sa vidéo yi ah nit yi di duggati ma gaaruwaale su ma ñëwee fii ba nga dee doo ko defaat yow yaa alaku booy yow na njëkk ma interview si lii nii booy tax ma génn a wax Gambien yi suma problème Gambien yi di ma bully every day booy nga war a génn ne leen man maa interview kii fa time bu mu wax bu leen ko def lii nii. gars yi ñëw di gé di gàngoo ak gars di ma garuwaale ma bu indi yow 60 years old yow yaa alaku booy jigéeni sénégalais boobu rek moo baax si yow. ku la génneeloon fii vidéo few years ago di nangam sa juróom-ñaari maam. very good ndeke yow da disaaf vidéo boobu noonu booy man vidéo boobu dama ko doon ma naan jigéen bi xanaa ndax jigéen bi dafa dof lu moo wax nii jigéen boobu lu mu la wax yëpp ah ndeke danga ko disaaf yow yaa alago booy meer bu em ni yow booy yow lu tax mere ma mooy sa vidéo yu xaraama te njaay yu nga dee def booy fecca di juutu comme caga bu rancang meer bu em ni yow nga am jëkkër am ay doom booy di juutu si caméra bi ak ay ferme ni caga bu despre nga xam ne dama dee wax ne loolu baaxul moo dog sa xol mi booy fii weesigo bu nga ko defee fii juutu mel ni kuy nduka téléphone di booy ma ne la meer dafa sa bopp ak nit nit yaa ngi laa seetaan nga say ñëw di jaay hypocrite yow yaa jàngal nit yëpp gaaruwaale si community bi booy tey sax wax nga ko sa vidéo bu ma defal ak bu nga def fii weesigo nga ne is ok ñu ñëw gaaruwaale bu ñu tudda tur rek nañ gaaruwaale yow yaa alaku booy yow yaa ñàkk jom tey xaj booy meer bu alaku bi nga doon sixty year old sa gannaaw sa face bu mel ni muus bu feebar booy yow yaa alaku te gëmuloo sa bopp sa xeesal bu nub bi booy sa loxo yu piti panta yi booy booy tere ngaa dee nag <laughs> soo ma taaya laaka olof yi gambien fii booy eh la illa wooy nga man dégguma olof yi gambien te du nga ne ñu ñëw gaaruwaale yow yow yaay naa fee xam waay yow yaa tax communauté bi du baax soo ñëwee di jaay bàq <laughs> nii lañ waroon di def nag every day ñëw rek support each other positive <laughs> positive support each other waaw tey nag damay gaaruwaale damay gaaruwaale ba suma considéré du ma tudd kenn de waaye seen palaat yu taj yi palaat yu baax sax amu leen ko suñu waxee ngeen naan bàyyi leen waxi xeesal ngee ngee ngee suñu waxee ngeen naan communauté bi nii communauté bi naa yéen nit ñeer yow yaa moom yi. yow yaa ma njëkk a saaga fii last year su ma yëfi under ah, age marriage bi bu ma yow yaa ma njëkk interview lu ma góor turu force passé interview ma mooy yow di ma kool di ma nax jox ma fit pour ma génn wax ni ñi lu ma dunda booy ndeke danga ko doon def pour nga yow am nga sens mooy rek ma aye saaga ndey yow danga ko doon def pour nga am view rek yow interview yi ngay def ni ñi is fake as hell moo tax doo dee am koo interview yow doo musa am benn nit koy interview ku man man ma ñëw wax nit yi lu ma dunda yëpp ak wax nit yi waaye de su dun yow nga njëkka ma koo saaga nga ne lu tax ma ne la yéen a ngi dem si parti góor jigéen boobu di ko célébrer di promote góor jigéen si community bi nga xam ne xam ngeen ne góor jigéen nit i community bi bugguñ ko yàlla buggu ko de waaye community bi ñoo ko ginaa bañ yàlla te yéen loo mun leen si dara kon yow looy change si community bi looy wax naan effing cleanal kitchen effing cookal domoda when you cannot talk about the big fish góor jigéen moo gën a am problème daan effet doomu daa yow sa tooga yu bon yooyu noonu xanaa gisoo sénégalais yu mun a tooga yi booy yow sa tooga yu <tsk> waaye bu ma taxa saaga yow yaa alaku booy yow yow yow yaa alaku booy yow meer bu em ni yow alaku di gaaruwale di naa feexa di ma gaaruwale every day these days all of these days yaa ngi maa gaaruwale sa vidéo yi soo ma gaaruwale waatee lillahi wallahi su ma ñëw atee fii ba nga dee doo ma gaaruwale nga teg ne nii laa la def damaa ostattu harabe ma gaaruwaale waat yow yaa ala ko booy mais bu em ni yow sa xeesal bu piti panta bii nga mel ni tomate bu nëb booy nga mel ni jësit bu feebar booy xoolal sa yaram bi ñuy wax nga naan man kay dama bugg a xeesal leen di wax nit yëpp yi xeesal man dama bugg a xeesal ma dee damaa xeesal yow xeesalal ba dee yaa koo yëg yow kan moo wax bu nga bàyyi xeesal kan la yow kan moo la mun a bàyyi loo xeesal yow sixty year old ba léegi gomuloo sa man mun naa yow taxuloo may wax xale ndaw yi ñoo tax may wax booy pour ñu gëm seen boppa yow danga alaku booy waaye yow bul yab nit yi maan meer bu toskare bu nga doon fajar nga xëy click sa facebook bi mel ni ami bu confuse booy te yow yaa ngi am jëkkër ngay eewoo sa jëkkër nga mel ni célibataire bu xooñ booy danga dee eewoo stress yaa xam te click facebook bi mel ni célibataire bu xooñ bu amul góor bu ko lifin booy booy yow sa sëy bi naka la naka la demee foofu booy ko man su ma amoon jëkkër di ewoo suma jëkkër fajar may click vidéo bi booy di yuuxu mel ni ku confuse booy xamal ne suma jëkkër moom you know yow sax na sa sëy bi lan moo fa neexa booy come on yow be proud of yourself loo dee njëkkalantu téléphone bi ni Ami Jobe bu feebar booy yow danga confuse naa feexa booy yow ku la fexe ngay wax si vidéo bi naan nañ gaaruwaale jarul ñuy autour waaye nañ leen gaaruwaale rek that's fine yow mën ngay wax loolu yow soo ma gaaruwaale waatee ah dama laa mbéj si téléphone bi fii booy ba mbéj bi fekk la sa nekk gars dof dof do ñuy wax nga naan sénégalais ku laa seen nit gars ñëw attaque la that's good gisuloo nu ko sénégalais yi def yow yaa danga am sens mooy ay ayama saaga ndey sénégalais yi it's not like that it's yow yow ak sa kubudu bi yow yaa dee kool ñi ma nekk di bulli nii gay ngeen di kubudu di ma bulli waaye man du ma oo gaay seen tur du ma defantee gaay because ñu may oo yi ñu may jëfa defantee ma ni daf si am ñoo xam ne man moom soo ma fayoon million sax du ma leen tontu yow sax soo gisee ma laa tontu yaa ma interview yaa ma njëkka interview si suma under age marriage bi booy yow nga neexal ma fii ba moo wax ndeke danga ko doon def pour vivre rek booy ma def koo pare nga ñëw di ma ko xasee because man maa la ne yéen a ngi dem si pati góor jigéen di promote góor jigéen di film vidéo yi di ko def Facebook lu jar na ngay wax suma childhood te yow soo ma loofoon nag ma doon kool kon nga ne nit yi suñ suñu defee dara lu mu wata dañ ko war a lu tax kool loo ma nga ne ma ami man vidéo bu ma post pati góor jigéen lu tax nga see def vidéo xam nga konoon dama doon wax oh sorry sister nanga nanga bi comme ma defee lu ma war def soo waxee man dama lay wax sorry waaye nga tëb booy defal ma vidéo naan ma sa caba bi dañ ko toj boobu judduwuloo moo tax nga dof yow yaa ma ka a saagee loolu booy ba tax golo yu ma saaga nii faale wu ma leen booy xam loolu ma jooy pour suma yaay suma mag yi ak suma raka ak yeneen nit yu jaar si lii moo tax man lii dama si tërkis léegi booy su ngeen ma tërkis looyee di ngeen ko réccu booy waaye bëgguma leen a toppa because yéen ñi su bari da ngeen toskare ba bugg a yàq askan bi booy bëgguma mel ni yéen maa ngi fight on my own pour ma bañ a mel ni yéen moo tax lu ko doon su ngeen mañ su ngeen mañ yàkkalooyee jom bi ma mel ni yéen booy community bi yëpp la ñoo yaa yàqa booy yéen ngeen pare pour yàqa community bi booy fu wax yu bon nekka ngeen dem toog fa fu fecce yu bon nekka ngeen dem toog fa fu def lu bon xeesal def lu bon nekka ngeen dem toog fa di promote borom promoting naa feexa yooyu noonu you don't love nobody da ngeen dee promote nit yi di naa feexa pour ngeen mun a wala ñeneen ñu leen promote na naan ah, nit yi dañ leen dee jooy soo man dama laa promote man am good yéen yéen a daaxaa jooj nit ñu ngeen a jooj ne ñu duñ promote ñu xanaa nit yéen yéen a nekk naa fe yéen yéen a bon maan yéen yéen a alaku yéen lan mooy seen problème yéen di ngeen mun a wax ne dangeen naa téye community bi booy poñe ko booy di def seen ko alaku su nit yi waxee ngeen jël wax bi moomale ko seen boppa booy bi because yéen a ngi alaku booy yéen yéen ay kat dem leen ngeen change the hell kon wala ngeen génn si nit yi seen live vidéo yi booy yéen di ngeen ma mun a teree wax waay su yow moom soo ma gaaruwaale wax tey wax nga naan damay gaaruwaale benn sax waaye duma autour danga alaku yow nga am 60 years booy màgget bu mel ni yow sa kanam bi mel ni muus bu ndey kumba booy soo ma oytuwul soo ma gaaruwaale waatee booy toskare be bugg a dee sa féeg fen yu nga dee ñëwee di create di ay story di binda am na ku ma mu ne lii lii feni kese yow kenn du la dee jox story bi cause yow koo jox story jëw ko xas ko ak story bi ñëw si diggi live vidéo bi ko ko xasee comme nu nga def soo kan moo laa joxaat story sa story yi fake la moo tax doo dee am nit after boo ma interviewé amuloo keneen ku ni man ever again ak balaa nga mënoo interview sax mosuloo am ku mel ni man because sa interview yi dañ fake danga ko dee def pour nga collect information yi nit ki after nga xas ko nga use information yooyu noonu yow yaa ngi jàngal xale yi si community bi yëpp naka la ñuy xasee nit ñi ak seen you know uh, uh, interview um, story childhood story bu ñu wax pour jàngal community bi yow yaa ko jàngal ñu may xas ni yëpp yow mu ma interview yaa ma ko njëkk a xasee xamuloo loolu te yaa ko tay wooy boo yow yaay naa féexa yow léegi problème bu xew nii léegi bu community bi mer ñu ne because man maa ngee wax because lu ma yàgga di wax at yi yëpp te neexul leen ñi bugg maa fay loolu di ma gaaruwale waat defal nga ma vidéo fii de segoo ni ñi wax ma ko ma gis ko noppi te itam nga nekkaat TikTok nit yi di dugga di ma garuwaale ngeen naan community nii nit yi nii nit yi naa man nga ñaawal booy yow ban woot nga dee use askan nga dee use askan doo dee use community soo fi use ate community booy si téléphone bi laa laa mbéj mën ngay garuwale naan community ñoo xam ne dañ bugg a yi mel ni mel ñoo xam ne yi mel ni ñoom ñoo xam ne dañ bugg a yi def nii moom maa la wax ne dama bugg a yéen ngeen mel ni man booy yéen kan moo bugg a ngeen mel ni man yow kan wala mun a def ni man yow gëmuloo sa boppa booy ngay xeesal hundred years ba toskare yow man mun naa laa def ni man yow mun ngaa mel ni man booy xanaa ni konoon sa doom yi influence la ba nga mel ni ñoom yow yaa naa féexa booy soo fi waxatee yow su ma waxee xeesal rek nga ne yow laa wax kon yow tëjal sa gémmiñ bi noo dee wax everyday naan askan bi nii askan bi nii dat vidéo bu ma mujjee defal Facebook sax yaa ngi fa doon wax yëfi Sénégal xaw ma lan ndax yëfi almudi xaw ma taalube yi lu tax ngay xas taalube yooyu seen péréen si kon di leen wax ne askan bi waajur yu bon ngeen di joxoñ gaay di def lii soo yow you are allowed that yow why lu tax ngay saaga ñooñu kon seen waajur yi di wax ne dañ bon yow you are allowed to waaye man su ma waxee nañ leen bàyyi fecca yu bon yi ne leen bàyyi um, um, yenn jikko yi nga xam ne wax yu bon yi fecca yu bon yi waxi caga yu bon yi dafaa yàq community bi nga ne loolu nit yi duñ wax because that's who you are bon mun ngaa saaga ay péré nga naan yéen a ngi jur doom yu bari ay juróom-ñeenti doom ay fukki doom bu leen jurati waru leen a jur ñee yow wul yow am nga ray bu nga wax ñooñu loolu noonu bot keneen amul ray mu ne community bi nangam nangam nañ ko moytu man su may wax pour xale yi buñ jóg di def loolu moo tax ñu nga xam ne dañ yaaxu ba pare waxuma pour ñooñu bàyyi ñooñu duñ bàyyi booy ku alaku ba pare man Amie Jobe mun naa koo defar booy man damaa wax xale yi buñ copie ñu xool fu ñoo copie booy man sax su ma defee lu bon buñ ma copie booy loolu moo tax may wax yow yaa alaku booy meer bu toskare bu nga doon ñu waatil nga gaaruwaale ma rek ñu waatil nga gaaruwaale ma booy danga am sax nit yi ñoo ma ñaan bugguma oo sa tur booy sa jikko ñuy wax nga naa nañ leen gaaruwaale ba sax saf ñu dugga sa vidéo bi di ma gaaruwaale noonu yëpp naan dinañ la defal lay de oytul de diw bala ñu laa defal live community bi borom community bi nii dina la defal lay man duma tudda ñooñu yëpp duma leen defal lay booy xam nga lu tax ñooñu xamuñ ma musu ñoo yow danga ñëw si man booy du dugalantee man booy di waxaa man di ma kool di ma neexal ku ma ñëw wax sa plateforme bi lu ma dunda booy just pour nga am view ma wax loolu booy nga maa nga use loolu noonu di ma xas booy di ma buli booy all these years booy mag bu en ni yow yow sa jikko bu bon bi nag danga am chance booy su ma yaay daf ma aaya saaga ba pare sa yaay dafa nekk nit nuru ku baax so konoon sa duma ko saaga gis nga jigéeni sénégalais bu la defaloon vidéo pour yéese góor lu mu la wax ndekete yow noonu nga mel wax na dëgg so wax na dëgg yow defal sa boppa nit booy yow danga toskare yow nekkuloo di defar community bi booy danga ñëw di jàngal community bi xeesal bañ seen boppa ñàkk a gëm seen boppa ak jikko yu bon booy ca juutu sol jaljali jox gannaaw caméra bi di juutu meer bu em ni yow di sëy booy am sa ay doom booy yow nga am sixty years old booy ji ko caga yooyu noonu nga dee def booy nit yi di wax nga naan la yow yaa ala ko booy demal nga was yar sa boppa yow lu nga wax nit yi yëpp yow you need it <laughs> lu nga wax nit yi yëpp yow you did it man <laughs> yow you don't believe in yourself and you're a hypocrite man yow look at yourself <laughs> look at yourself <laughs> you look insane so ugly sa xeesal bu tilim bu bon bi waay sa doom yu nice yooyu macha allah doo leen xool ñu motivate la nga mun a bugga sa boppa booy nga xool seen ñu laay bi nu see nga mun a bugg sa boppa rusuloo ñuy wax nga naan sax nekkay mu ngi xas xeesalkat yi ah te diw sangal sa daf day jaay sax de yow nga nekk di xas xeesalkat yi rek yow nit yi jaay xeesal dina tax ba man du ma wax man su ma wax suñu xale bu ñu gom seen boppa moo tax yéen mu ngeen maa yuus ne man ma tëj suma géñ bi ko yéen na ngeen def jikko yu bon yu maa wax yëpp yéen who the hell are you just because yéen a ngeen def jikko yu bon yooyu léegi man dama war a noppi yéen get to hell man yéen who the hell are you guys yow yaa njëkk a start lii maan di ma saaga ak lu ma dunda ma nekkee xale nga interview ma sa plateforme bi for the first time nga nga ma koo xasee waay ngir ne yaa ngi dem si pati góor jigéen boobu noonu waay yow dema si pati góor jigéen danga bëgg sa doom yi nekk ak góor jigéen yow you will like it fine waaye man duma ko like jigéen yu bari duñ ko like community bi duñ ko like so who the hell are you yow naka ngay waxee community bi ne nii la ñoo toogee si sëy nii la ñoo toogee añ nii la ñoo defee lii ba doo wax the main thing loo xam ne mooy ginaa sonal community bi jigéen yu bari tey is beta ñu am doom yu mun ta toog a benn cin sa benn cin yu bon yooyu anyway dan doom bu nekk ak góor jigéen booy ñaata jigéen fii ñoo fii choose pour ñu am doom bu mun ta tooga te nekkul góor jigéen dan doom bu mun a tooga te nekk ak góor jigéen man de loolu mu ma gënal booy doom bu mënut a tooga mu dundee mbuuroo bota booy te nekkul góor jigéen loolu laa bëgga yow yaa alaku te naa féexa booy looy wax community bi ne kay jàngal la tooga boot yow dama la war a bàyyi nga nekk góor jigéen duma la wax ne bul def loolu noonu yow yaa naa a booy jos bëgguloo wax because danga bëgga nit yi buñ la sikka booy yow naa féexa nga booy yow sotof maan maire bu bon bi nga doon yow yow di liggéey booy si community bi danga ñëw pour ut ndaje booy every day yaa ngi complain duñ dee support nit duñ ma dee support xoolal nu may def duñ ma dee support yow support yow biw moo la fi isi booy maire bu toskare wi nga doon yow de man naan sa garab yi man ngay garuwaale di ma saaga danga wik maa la ginnaaw wik ñu wàttil nga saaga ma yow nga interview ma lu ma dunda ma nekkee xale booy nga ko use di ma saaga because yaa ngi dem si pati góor jigéen parti góor jigéen moo ginaa a am fayda xale boo xam ne ñu ko sexual abuse yow yaa bon boy yow looy ñëw naa dangaa defar community bi doo nekkuloo di benn community danga naa feexate bon boy yow danga naa feexate bon te gëmuloo sa boppa booy wala sa yaram bi mel ni ñami mbaam booy sa loxo yi ngi poto poto booy bàyyi sa xeesal bu nub bi wala sa doom yi ñu motiver la booy yow naka ngaa jàngale community bi dara booy suñu waxee nga naan communauté bi dañ bon communauté bi dañ bon yow yaa jàngal suma maas seen wax yi booy yow nit yi man balaa may start vidéo la gis ngay wax communauté bi dañ bon tilim xesew jóg leen bale fii yéen a ngi xesew tilim bon yow yaa ma jàngal waxaa communauté bi like gis booy yow yaa ko dee jàngal ñëpp booy yow yaa hypocrite bon booy <laughs> ñu wax nga naan bi dañ bon dañ mun a saaga nit ñi day ñëw di xaste rek yow yaa mun a xaste te bon booy yow yaa hypocrite ku la wax ne yow doo dee xas nit yi booy ku la ko wax dafa fen yow danga dee xas nit yi every time booy naa feexatee bon booy <laughs> so su ma garu waalu waatee booy ñuy wax nga naan soo ko noo stress ngi yow góor yi ngay dem di follow di seetaan te yaa ngi sëy booy danga alaku booy yow nga am jëkkër di am ay friend yu góor nii nga def benn friend ak booy di ma jow si alpha naan ko mu ñëw takkama moo tax alpha weer la very good gis lu alpha weer la bu bu ma meree mu ne Xadi Konte dafa wax ma takka la tudda naa sa tur sa loolu nga yeeloo booy yow ku la fekka nga naan ñëw leen ñëw leen ñu gaaruwaale mag bu enni yow nga naan every time su ma buggee wax dara damaa gaaruwaale ba boroom xam ne moom lay wax yow danga ragal moo tax nga def loolu danga taapeet booy doo ma oo soo bàyyiwul di call nit yi di wax suma affaire fu nekk ay soko no stress fu nekk ay duga booy di am téléphone nit yi ay alpha fu nga ngay am téléphone góor yi di call gars yi mel ni caga màgget booy yow nga am jëkkër sa ay sa ay doom looy koolee ay góor di furee na ñoom booy booy yow man sax aw ma furee ni góor yooyu man mu amul jëkkër sax yow yaa alaku booy man sax every time góor yi suñu ma dee toppa du ma leen dee nangoo jox suma namba xanaa góor boo xam ne dama ko like bëgg a dugalante woon pour mu takkama su dul loolu duma nangu friend yi góor booy yow nga am jëkkër bi am ay friend góor mel ni caga bu desperate booy yow defal sa boppa nit maan yow yaay jabaate soo ma gaaru waale waatee si téléphone bi laa laa mbécc ak sa face bu mel ni muus bu feebar noonu sa fiis bi mel ni pompiteer bu feebar booy xara ba ma trayaat what the hell ñu wax nga naan ma palaat yu toj amul sa palaat yu baax man dama faale palaat booy am naa suma yaram bi suma natural yaram loolu moo gën palaat yow soo amee palaat yi Dubaay te sa yaram bi yëpp a ngi nëb ni tamaate sa palaat sa yaram bi bopp amuloo ko get to hell booy man naan suma moringa booy trayaat ma booy yow who the hell are you don't worry nga naa Amie Jobe dafa stress yow yaa ma gën stress sa vidéo yi dang dee look so frustrated <laughs> I swear to Allah Espérate. Yourself video you done, they look so stressed and frustrated, boy. I swear to God, boy. te yow yaa ngi am jëkkër boy. dang dee mel ni koo xam ne Ami Jóob bu feebar yaa raw boy. I swear to God dang ma dee jaal di jaal community bi te war nga naan moringa booy gis nga lii moringa powder la <laughs> ak ndox bu tànga booy ak ginger tea booy no sugar nothing si naanal lii booy lii moo gën sa garab yi original garab yow defal sa boppa nit booy yow meer bu bon bu naafeyaa bu nga doon xaram bëgg ma garuwaale waat man what the hell man bismillah yow yaa naafeexate bon booy man ngay gaaruwaale ñuy wax nga naan damaa ñëw gaaruwaale waaye du ma tudda tur damaa wax luma ma nee waaye du ma tudda tur loolu moo gën a bon tudda tur cause loolu mooy ne danga ragal a tudda tur waaye dinga wax nit ki lu ko bugg a wax boo yow lan laa jotee yow si problème bi booy lan laa jotee yow nu nga gis niti yu may against nit yu nga xam ne lu ma dee wax gars yi dañ ko dee def tax ñu mer foog ni ñoom laa dee wax wala foog ne dañ ma war a ger di def su ko defee gars yi mun a firi def lu ñoo def nit yooyu ñu jël problème bi nii def ko seen problème it's not even seen seen problème bugguñ sax borom dañ ko def pour against moom man yaa ko tey yow bu ma gaay yi xasee be xasee ma loo xam ne yow yaa ma ko njëkkaa interview ci community bi soo nekkoon ku baax fake as bu nga doon danga doon génn yi xool leen su ngeen meree ki bu leen tuddal lii because lii nii man maa ko si njëkkaa interview sax te lii daf ko wax pour e bi e xale yi xaw ma e mag yi nga xam ne ñoo ko dee def si xale yi ñu bàyyi waaye déedéet nga kontaan si loolu ñëw naan hey hey gis loo sénégalais nuñ ko def ak communauté bi nuñ ko def very good yow yaa bon boy yow yaa naa fi xate bon yaram bu poto bi xeesal bu jaxasoo bi mel ni tomate bu feebar boy man lu ma dee wax xeesal moo yow mun nga maa teree wax xeesal every time nga naan am Jobe Daf dee ñëw di wax xeesal yow yaa naa feexa boy yow loo dee wax loo dee wax loo dee wax askan bi yëpp kon bul waxaati askan bi dara booy boo yow naa féexa booy yow askan bi dañ dee xool lu la nee nga def si topic di ko wax waaye yeneen yi nga xam ne mu am fayda doo ko ñeme ña wax booy te su ko nit yi waxee nga ne ñooñ nañ sotop boo yow naa féexa booy kon looy fake as di nekk si community bi di wax soo ma defalatee gaaruwaale vidéo meer bu toskare bu nga doon suñ waxee nga naan nit yi dañ ma dee buli suñ waxee ngay ñëw di jooy mel ni ami jóob bu feebar booy te sa jooy yëpp naa féexala booy because yow danga dee wax nit yi naa ma dee buli ba pare yow afta ngay gaaru wala nit yi di leen buli booy <clears throat> yow yaa naa féexa defal nga ma vidéo two days ago tey nga ñëwaat defal ma vidéo sa tiktok bi nit yi dugga di gaaruwaale yow ak different people di gaaruwaale trayaat ko nga teg ne everyday ngay ñëw fii di ma cax-caxee booy nit dama bu gis yàppa sa vidéo yi booy sa xeesal bu nub bi wooy nga guma di sa boppa ba bugg a dee wooy what the hell wooy trayaat ma rek bumba kalaat bi nga doon ñuy wax nga naa nit yi dañ ma dee def noonu gis ma rek bañ ma yow kañ mo kan moo laa bañ yow sa face bi mel ni mboota ji mel ni bu feebar <laughs> jéego laa bañ kenn bañut la sa jéego bi moo tilim booy te naa feexa te sew jiko te yaa mag ñëpp booy yow ñu nekk si vidéo yëpp yaa leen mag meer bu toskare bu nga doon booy yow yaa jàngal nit yi garuwale ak defante bi yëpp booy yaa ko dee def depuis day one booy naa feexa bu nga doon di call nit yi di whatsapp nit yi di munu munu di jow di di against nit yi booy boo yow yaa bon booy ku nekk nga def ko friend pour nga mun a jow kele ne la ak moom yow bugguloo kenn booy lu ngaa wax naa ne leen bugg a iccooda ne leen support iccooda loolu yëpp fenn la booy Nigerian yi dañ dee support iccooda xeet bi dañ dee support iccooda booy yow da nga mun a support kenn booy because yow nga ne looy def kenn bu mu ko wax su nit yi waxee xeesal nga ne yow la ñuy wax because danga dee xeesal su nit yi waxee bu leen fecca di juutu si caméra bi mel ni ay caga yu alaku suñ doom yi yëpp suñ magee di ko def du baax ngeen ne ngeen ne ñooñu yow la ñuy wax because yow danga dee def loolu yow léegi kat naka ngay supporté nit ku nekka naafiya comme yow rek nga ngay support ku alaku comme yow booy koo xam ne lu ngay def loolu la dee def wala du ñeme ña wax suñ waxee ngay nit yi dañoo jooj nit yi booy yow doo dee jooj nit yi yaa ngi maa jooj di ma xas naan aw ma ay palaat yu baax aw ma ay bool yu baax ah man dama tilim nangam nangam loolu du jooj man du ma nit every day ngay wax community bi dangay ngeen ngeen bonee bi askan bii yéen hmm, sa xorte askan bi billaay yéen xam naa yéen a ne jaww di yóndu ci gannaaw téléphone bi añaan ngeen a dugg su ma duggee rek ngeen taxaw si gannaaw palanteer bi di yóndu billaay yéen dugg leen waa dugg leen toog yow askan bu nga dee xas noonu ñooñu duñ nit boo yow yaa naa fexate bon booy yow yaa dee yaa jàngal ñëpp as xas askan booy xas askan bi yëpp yaa ko jàngal nit yi booy yow da nga psychiatrique te bon booy yaa ko tay booy demal nga naan moringa tii booy ak jinja tii moringa sungufi mbuum ak jinja jinja tii def ko si ndox bu tànga nga def fa lem booy mbala nga naan ko moom kese booy dama fa faatee def lem sax yaa taxawee faate suma lem bi booy booy yow yaa feebar booy yow yaa bon booy defaatil ma vidéo next time di nga xam booy des fois tellement di ma gaaru aale booy yow yaay kan soo fi nekkee di juutu ci askan bi di fecca def sa fer yi booy def caméra bi jox ko gannaaw di juutu di yëngal sa ndigga bi comme kuy nu ka góor nit yi duñ la ko wax ne la yaa ngee sëy te meer nga te yaa ngee def li di ko jàngal askan bi suñ doom yi suñ magee di ko copy is not good suñ jarbaat yeeg suñ askan bi suñ magee di ko copy is not good yow ngay jàngal askan bi fake as bu nga doon nga ne da nga ñëw pour correct askan bi ñu ne nit nit ne la bul ma may la bul def loo noonu yéesegoo tax nga mere ma booy amee ma si xol booy di ma xas after bu ma la waxee ne bul def loo noonu nga ñëw di ma xas amee ma si xol di ma gaaruwaale di ma gaaruwaale di ma gaaruwaale under age marriage ma noppi di la ignore booy nga ñëwaat dem si pati góor jigéen boobu noonu booy ma ma ma gis vidéo ma ne nit yi dem si pati bi booy waruñoo nekk di dem di promouvoir lii nii booy góor jigéen bu meko bu booy di fecca si pati booy def baax de pati si hôtel bi xaw ma xool xaw ma xayam booy ngay dem foofu noonu di enjoy di film di def loolu Facebook community bi di ko gis ma ne la ne yéen def leen seen boppa nit yéen a ngee promote lii suñ doom yi suñ ko nekkee yéen sax ndax yéen seen su ngeen ko nekkee ndax di ngeen mun a nelaw tey yéen tey ku fi sa doom kool ne yaa góor jigéen laa ndax di nga mun a nelaw insight doo ko mun yéen bu dee ten nga benn bi kon mooy nelaw nine bi yëpp buñ nelaw booy yéen a ko tay da naa féexa rek booy let's be real come on ñun xamuñ loolu woy ñun ak naar yeeg yeneen xeet yu nekk Europe yëpp tax loolu taxul ñu xam loolu woy xamuñ ko léegi moo waxee loolu nga génn naan ma sa caaboy buñ koo toj ju diwuloo yow yaa ala ko woy yow danga dee interview nit yi pour nga use loo noonu di leen ko saagee woy moo tax doo am koo interview moo tax community bi kenn du nangu ñu interview la ñëpp ngee dee di naan di laxatu di def lu bon bi ko ñu ngi stress ku génn wax pour dimbale askan bi sa maasu alaku yi di ko ko saagee booy yaa ma jëkkaa saagee lii sax yow long time ago booy yow yaa alaku booy su ma ñëwaatee fii pour yow di ko regret man maa ngee dem nag naa la gisaat sa vidéo booy nga maay gaaru waale ni hopeless bu desperate booy loolu lay xaar idiot bu nga doon yow naa la gisaat nga gaaru ma booy yow yaa ala balaa ñoo wax nga naan bari wax nekk si internet bi di wax rek yow yaa ma daaxaa wax booy kaare man yow nga me yaa ma raw yow nga booy yow soo kiligee sa vidéo yi nga dee per ni pitaar bu taaka booy déglu sa boppa booy te du wax dara lu important at least man suma bari wax yi daf dee important dama dee research read book getting knowledge about mental health and the, how to help the community, uh, you know, in a real way. yow doo dee dang dee ñëw di par wax yu kenn xamut booy suba teel nga mel ni ku confuse booy kili caméra bi booy di film sa kapet boobu mel ni uude bu feebar booy sa der bu jaxasoo bu xumba boobu mel ni sa der boobu ku ko mayoon sama saani ko booy sa der boobu mel ni uude bu feebar nga dee use every day bu ay hundred one million year der boobu noonu sa togg bu bon boobu mel ni togg ami joo booy yow gambee ni am kër yu daxa sa kër yi ñoo fi nekk te duñ ko dee film booy yow soo amul kër bu nice nit yi dee booy booy yow soo amul xaalis bi am kër bu nice booy laa booy ndekki yàlla moo xam lu tax mu def la nii booy yow soo nekkoon millionnaire yu am kër yu rëy yu nice yuy booy laa konoon every day ñu ñàkk yi booy di leen buli waaye bi gars yi suñ strong dañoo dem def luñ war ta def jaay taay fële def lu nekk pour am xaalis booy yéen yéen a dee tax nit yi dee def lu bon pour am xaalis booy because yéen du ngeen dee am sa te da ngeen dee yàkkamti buli nit ak lu ndaw lu ngeen am xoolal xoolal lu mu amee moo taxit du ngeen dee am sax real money booy boo sa boppa sa boppa te mënuloo tooga xoolal yow man dang ma tane rek bur set bul gis de yow sénégalais yu la daha benn cin fii nii daha la toog ak gambien yi ñoo ñoo dee def seen boppa nit fii waay yow mënuloo dara sa benn cin yu weex yu tooy yu dee tooga ni yi dama ko dee gis ree mu ma dee jàppa comme man suma benn cin yu police yooyu booy boo yow mënuloo tooga bu baax de bul gis nit yu laa jay nii de yow ñu la daha tooga ñoo fi dut film seen tooga yi waay every day ngay film sa tooga yi ni ami job bu confuse booy ñuy wax yow yaa baax yaa mun nangam nangam booy yow dangaa fen soo fi ñëwaatee di ma gaaruwaale next time di nga xam ma bu police bi nga doon yow ya yaxal community bi nii yëpp yow yaa jàngal community bi gaaruwaale si vidéo because yow si ñu njëkka start video nga bokka sa video every day gaaruwaay la doy nekka doo dee ñëw nga ne community bi nañ leen clean nañ leen tooga wa leen whatever dang dee ñëw yéen ni ngeen tëlimee yéen ni ngeen xasewee yéen ni ngeen foroxee xam naa ne yéen a ngi tëdd rek jóg leen def lii billaay community bi billaay yéen ca ñama ko saña wax waaye billaay yéen aka yéen a bon billaay yéen yow nii nga di def téléphone bi booy yow dang dee gis sa booba nii nga di def billaay yéen billaay askan bi hmm, yéen yéen dina soxor billaay yéen yéen a ngi yurundu rek xam naa di ngeen añaana dugg dugg leen yéen a ngi yurundu rek billaay yéen ci prix bu doon Nigérian yi la kon noonu ñëpp a ngi ñëw di ma supporter billaay yéen ci prix yow yaa dee xas askan bi every day boy doo dee ñëw rek nga ne hi guys nañ leen def lii tey nañ leen def comme nit yi dee dem nga pare dem yow mënuloo loolu booy yow da nga naa feexate hypocrite booy yow xanaa gi doo dee gis sa vidéo yi woy seet ko yaa jàngal nit yi lii yëpp booy naa feexa bu bon bi nga doon booy yow lan moo nekk sa problème every day ngay forcé ne da nga bëgg a nekk célébrité booy yow da nga màggee te gëmuloo sa boppa ñun suñu woon am célébrité dañ ne célébrité bu gëm boppaam célébrité bu xeesal ba toskare booy nii duñ ko ñun suñ askan bi dafa ñuul dañ ni bu gëm boppaam kuy xees mu nekk naturel célébrité bu gëmul boppaam lan lam la mun a jàngal booy li la jàngal ne bul gëm sa booba boo yow yaa alaku man maa ngee dem danga am chance dama soona maa ngi doon def leem ay yére yee di place order yee dagaase bagaase xaaral bi ma ñëwaat la next time nga gaaruwaale ma sa vidéo yi yow ah di nga xam meer bu toskare bi nga doon sa face bi ni muus bu feebar may wax nga naa ma palaat yi toj amul sa palaat bu correct man dama faale ndeyi palaat yow demal nga am sa own skin bala ngaa tale palaat bu mbokkalaat bu nga doon